kon li ñu war a def fii war koo def d'abord ci càmm gi parce que benn ci filière bu ëpp solo ci suñu filière yi ñu war a développer mooy filière boo xam ne sàmm moo ko yor càmm muy li jëm ci ndawal li jëmal ci ndawal ñu koy wax filière cuir li jëm ci meew mi nga xam ne léeg-léeg mu yàqu fii ci àll bi parce que amuñu fuñ ko conserver ak li jëm ak li jëm ci der bi nga xam ne day yàqu ci àll bi wala suñu cordonnier yi wala suñu artisan yi dañuy obligé envoyé der bi ay Italie ñu traité leen ko ñu doog ko delloo si fii loolu ci filière à valeur ajoutée yi ëpp solo la te fii rek lañ ko mën a defee muy le Rana du Ferlo fii rek mun nañu mun nañu def nag càmm fu nekk ci Sénégal waaye capacité bi ci am fii amuñu ko feneen li ñu war a def ci mbay mi

pour bokk ci aventure boobu kon bokk na ci niñ koy liggéeyee nag président Bassirou Diomaye fay juróom benn weer ci gannaaw dañoo dem élection li ëpp ci senegal yi ne moom moo leen doy parce que téeméeri Sénégalais yu ne juróom fukk ak ñeent yi

kon score bu deug deug deug bu ko doon natt man gëm naa ni weesu na 70 pour cent kon lu toll noonu ci yaakaar ñu tek ko ci loxo nit mu jël gouvernement formé ko jiital ma ci ñu jël ay ministre fal leen yaakaar googu du tok toog juróom benni weer Sénégal yi ne kooku duñ ko jox doole gu mu gouverner moy duñ ko jox majorité absolue à l'Assemblée nationale ba mu mën gouverner

assemblée nationale métti woon na loo fa yóbbu ñu ne du jàll parce que nous avons amoon majorité foofu kon enjeu bi mooy président Diomaye bi ñu dénk réew mi te gën saa gàtt juróomi at yi moom mooy président wu sénégalais yépp ku ko bëgg ku ko bëggul ku ko voté ku ko votul mon moi c'est président de la république kon kooku dañ ko war a dooleel mu liggéey dooleel gi nag mooy rendez-vous ngeen voteel seen député bii mu dem assemblée nationale taxawal leen fa ndax yéen xam ngeen ni Pastef du parti caaxaan du parti jël xaalis du parti de jaay intérêt réew mi waaye parti patriotisme la gëm réew mi bëgg réew mi te liggéey ngir yàlla loolu mooy Pastef loolu moo tax ñu amoon kattan ak doole bu ñu xeexee juróomi at jàkkaarloog nguur ak ni mu yor yëpp ci matuwaay ñu mën a jàkkaarloog moom loolu conviction moo koy andi

dinañ ci am tuuti nu mu gën a tuutee soixante-dix pour cent garantir ngeen ñi nu mu gën gën saa tuuti soixante-dix pour cent ndax bëgg ngeen Ranérou soppi ko bëgg ngeen càmm ji dox mbay mi dox fii gis naa fi samay samay maam yu bëri mbokk sàmmkat yi bëgg ngeen seen nag yi ñu andil leen ay nag croisé ba ngeen am nag boo xam ne mun na leen génneel